yaa nix ma seex noo ngi lay siyaar ànd ak yéene di jafas ñaar nga boole nu ci say axyaar ñala doy ci sab xidmati di wax waa mbooloom Xosas Pass ñooy door a egsi nii La Plata ñëw ci suur na xasida bi ah di ñaan lépp luñ fi jàng rek yàlla na ko Sëriñ Tuubaa ful ah yokk def ko ci bokki taalibe yi wisaare ko def ci réew mi jàmm defal mbokki taalibe yëpp xéewal ba kenn ku nekk li fi fiy si rek suñ borom defal la ko ci ndax xasida Sëñ Tuubaa man mën na lu ne kon nag ñun ñëpp nañ fas ci xasida Sëñ Tuubaa yi daal mu soppi dëkk bi def ko tawféex goo xamante ne kenn ku ci nekk rek di ci gis sa bopp ci barke borom Touba kon nag ñi jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf. Sëñ Tuubaa yaa nu ximmi ca naari yaa nu tere budul kon ak yow noo lamb tey seetaane